La première partie, c'est le président et ses collaborateurs. La deuxième partie, ce sont les scientifiques, les médecins. Et la troisième partie, c'est le peuple divisé en deux parties. Ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas encore. Pour ce qui est de la première partie, bien, le président a fait ce qu'il devait faire. Et ses collaborateurs à charge pour nous maintenant de suivre ces conseils. Et si j'ai dit que cette affaire a une remettre, c'est parce que tout simplement, les médecins nous ont dit il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de médicaments. Mais le remède, c'est la distanciation. Cela veut dire qu'il faudrait qu'on observe cette distanciation. Il faudrait que les gens restent chez eux le maximum possible. Ceux qui ne peuvent pas rester chez eux, S'ils doivent sortir, qu'ils observent une certaine distanciation. Et j'ai fait comprendre au président de la République que cette chose, elle est exponentielle. Vous savez, une fonction exponentielle. À l'origine, elle est très faible, mais elle monte très rapidement. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de pays. Et nous ne souhaitons pas que ça arrive à notre pays. Donc voilà, en gros, bon, on s'est retrouvés en scientifique, nous avons épilogué, nest pas, sur tout et voilà. Vous, vous adhérez euh, aux mesures prises par le chef de l'État. Euh, tout simplement que vous pensez que euh, ce sont des mesures qui s'imposent actuellement. Ben, je dis que c'est des mesures qui s'imposent. Il a fait son devoir. à nous maintenant de matérialiser ces mesures. Cela veut dire qu'il faudrait que... C'est un problème de discipline. De toutes les façons, cette affaire a existé avant. On est en train de le vivre, mais ça va continuer un jour. De toutes les façons, c'est un fléau. C'est le monde qui est ainsi fait. Mais si nous sommes disciplinés, mais nous allons avoir une certaine résilience qui nous permettra à chaque fois que des fléaux comme ça se présentent, que nous puissions les vaincre. professeur ginnaaw waxtaan bu yaatu bi nga xam ne amal nga ko ak njiitu réew mi ban taxawaay lañ mën a xaarandi ci njiit yi nga xam ni ci nga bokk mooy ñiy féete tey ci langue politique bi ak euh, rawatina euh, mesures yi nga xam ne njiitu réew mi annoncé seen ko démb. jërëjëf maa ngi leen di sant di gërëm ah président la république recevoir la honneur la euh, man nag dama fi ñëw ngir député la ngir dama yore parti. ngir dama mosoon na nekk candidat mais yooyu dama ko teg de côté dama fi ñëw en tant que citoyen di wax nag ne dañu nekk ci guerre te guerre bi ñeent ñoo ko yore mooy général bi joxe stratégie bi muy président la république jël na ay mesures am jaaram wàcc na ñun ñoo ci des beneen bi mooy ji nga xam ne ñooy scientifique yi muy médecin yi dañ leen war a dooleel ba ñoom du ñu manqué dara en terme de combinaison yi ñuy sol masque yi ñuy sol infrastructure yi ñu war a am ak seen lépp loolu mooy la priorité des priorités beneen bi mooy ñun nit ñi nga xam ne ñii jot nañoo feebar ñii jotuñoo feebar ñii jot a feebar ñu ngi leen di faj mais ñi nga xam ne sentir nañu dara ci ñoom obligation la ñu wanewu pour nit ñi bañ a tas beneen bi mooy ñi nga xam ne feebaraguñu encore que d'ailleurs kenn mën taa wax ku feebar ak ku feebarul parce que virus bi noonu la demee yow mun nga taxaw dara du la jot nga defe nekk ci fekk virus baa ngi sa biir parce que contamination communautaire xës na bi am bu ko defee ñooñu nañu toog seen kër ba li ñuy génn rek ñu seet ne ñàkk ñàkk mënut a ñàkk mais bu munee ñàkk nañu toog parce que bu fekkee ne dara dalagu la ah, nga toog sa kër mais saa waay yaakaar naa ne lu bëri du la dal donc président la mu war a def def na ko ànd nañ ci te dinañ ko jàppale li ñu war def aussi nañu ko def. bokk nga ci ñiy teewal askan wi ci euh, pencum ndaw réew mi euh, ci foofee tam euh, ban taxawaay ngeen fas yéene amal rawatina ci projet de loi bi nga xam ne njiitu réew mi fas yéene na ko jébbal député yi. waaw président moom waxtaan nañ ci bu baax defe naa ne du man maa fi njëkk ñëw am na ñu ma jiitu mais man mooy waxal sama bopp dama ñaan projet de loi boobu ñu wote ko ñëpp wote ko benn mais ñu yaatal ko aussi parce que damay dégg ñu wax état d'urgence sanitaire loolu amul parce que mbir mi du problème mu santé c'est un problème global état d'urgence la binduñ fenn état d'urgence sanitaire état d'urgence la ñu bind te bu ñu nee état d'urgence nag mooy nit ki danga koy bàyyi dooleel ko pour ñetti weer mu seet xalaat nit ñi jàppale ko la mu war a def mu def ko maa ngi maa euh, mu doonoon donc euh, professeur Issa Sall moo ndar képpal euh, audience yi nga xam ni moom la njiitu réew mi doon amal suba ak léegi wane na ni ànd na ci dogal yi nga xam ni moom la njiitu réew mi jël. di ñaax itam ñëpp ñu ànd ci booloo doon benn ngir jàppale njiitu réew mi ci xeex bi nga xam ne sumb na ko mu jëm ci Covid.